juróom benn fukk ak ñeent seedees yonent yàlla yaxya ci yeesu asalaamaaleykum mbokki yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci dëgg-dëgg yéesu almasi bi kenn rekk la ci juddoom ak jikkoom loolu lanu gisoon ci ñaari émission yi weesu ci mbind mu sell mi ci lu jëm ci juddoom gisoon nanu ne kenn mësula juddoo ni yéesu ndaxte ci janq la juddoo ci kàttanu xel mu sell mi te gisoon nanu it yeesu kenn rekk la ci lu jëm ci jikkoom mësula am keneen ku judduwaale jikko ju sell ni moom yoroon na sunu jëmm waaye yorul woon sunu jikko ju bon yéesu taxul woon bàkkaar ndaxte mooy musalkat bi yàlla wàcce ngir gàddul nu sunu mbugaluk bàkkaar tey jii nag danu fas yéene wey ci téereb linjiil ngir dégg li yonent yàlla ya seede ci mbirum yéesu yax ya mooy yonent bi yàlla yónni mu jiitu almasi bi ngir xàllal ko yoonam nu ngi jàng ci linjiilu yowaana sar benn mbind mi nee na lii mooy seedes ya amoon na bés yawut ya yónni ay sëriñ ca yaxya ñu jóge yerusalem ñëw ci moom di ko laaj mooy kan yax yaxya tontu na leen te nëbbu ci dara wëral na leen ne moom du almasi bi noonu ñu laaj ko ne wax nu yaay kan ngir nu mën a xam lu nuy tontu ñi nu yónni nga ne yaay kan yaxya tontu leen li yonent yàlla esayi waxoon man maa di baat bi yëgle ci màndig mi ne xàll leen yoonu borom bi man maa ngi soobe ci ndox waaye am na ci seen biir ku ngeen xamul kookoy ñëw ci sama gannaaw te man sax yeyowuma ko tekkil ay dàllam lii xewoon na ca dëkku betani ca gannaaw dexu yurdaan fa yaxya doon soobe ci ndox ca ëllëg sa bi yaxya gisee yeesu muy ñëw ci moom mu ne xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nar rey ngir dindi baakaaru àddina moo taxoon ma wax ne am na kuy ñëw sama gannaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may juddu fokk nu taxaw fii ngir xalaat tuuti ci seedeb yonent yàlla yaxya ndax dégg ngeen ni mu tudde woon yéesu nanu dégluwaat mbind mi mu ni bi yaxya gisee yéesu muy ñëw ci moom mu ne xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nara rey ngir dindi bàkkaaru àddina jàngoon nanu ba noppi ne yonent yàlla yi woowee almasi bi tur yu bare yu mel ni ramukat bi musalkat bi buur bi boroom bi kàddu gi ak doomu aji kawe ji te léegi dégg nanu ni ñu ko tudde mbotem yàlla mi turu am maanaa la te mata leeral lu taxoon yaxya tudde yeesu mbotem yàlla mi ndax yeesu mbotale woon déedéet Yeesu du woon mbote dëgg ni nun waa Senegaal dunu ay gaynde dëgg su fekkee ne sax noonu lanuy tudde sunu bopp léeg-léeg nun ñépp xam nanu bu leer ne loolu waxin la rekk ndaxte danu bëgg a mel ni ay gaynde ci lu jëm ci kàttan ak njàmbaar loolu leer na waaye lu taxoon Yaxya tudde Yeesu mbotem yàlla mi lu taxoon Yaxya joxoñ yéesu ne ay taalibeem xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nara a rey ngir dindi bàkkaari àddina lu ngeen xalaat ne loolu la tur woowu di tekki ngir xam bu baax li tur woowu di mbotem yàlla di tekki war ngeen fàttaliku li yàlla tëraloon gannaaw ba aadama ak awa bàkkaare jàngoon nanu ni yàlla dogale woon ne ndegam peyug bàkkaar mooy dee kon su deretu sarax su ñàkk sikk tuuruwul mbaalug bàkkaar du am naka noonu gisoon nanu ni ñaareelu doomu aadama ak awa di abel gëme yàlla ba renni menn mbote jébbal ko yàlla ci kaw rendikaay ba ni sarax suy dindi bàkkaar noonu bi yàlla gisee deretu mbote ma mu daldi teggil abel mbugalug bàkkaaram ate ko ni jub ndaxte mbote ma amul woon genn tooñ deena ci palaasam waaye yàlla waxoon na it ne deretu mbote moomu mënula nekk peyug baakaar ba faw ndaxte maanaawu mala ak maanaawu nit yamul mbote mi takkandeer ak misaal rekk la woon ci almasi bu sell bi naroon a gane si àddina tuur deretam ci palaasu bàkkaarkat yi naka noonu gisoon nanu ne diggante jamonoy abel ak jamonoy almasi bi ñépp ñi gëmoon yàlla dañu fonkoon saraxi mbote yi nooyin ibrahima muusa daawuda esayi sakariya ak yonent yépp ak képp ku gëm kàddug yàlla doon nañu jébbal yàlla ay sarax saraxi mala yu ñàkk sikk noonu lañu doon séentoo jamono ji yàlla wara wàcce sarax su mujj si di ramukat bu sell bi naroona tuur deretam ni sarax suy dindi bàkkaar ngir yàlla mëna a baal bàkkaarkat yi te ba tey dëkk ci njubteem looloo tax mbokk bi yonent yàlla yaxya gise yéesu muy ñëw ci moom mu daldi ko joxoñ ne ay taalibeem xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nara rey ngir dindi bàkkaaru àddina noonu la yax yaxya xamale ay taalibeem ne yeesu mi ci seen kanam mooy almasi bi di sarax su mat sëkk ci yonent yépp doon yégle mooy sarax su sell ci gane ci àddina ngir dee ci palaasu doomu aadama yi ngir yàlla mën nu baal sunuy bàkkaar ba faw gannaaw loolu mbind mi neena ca ëllëg sa yax yaxya taxawaatoon na ca bërëb booba ànd ak ñaari taalibeem bi mu gisee yéesu muy romb mu daldi ne kii mooy mbotem yàlla mi ñaari taalibe ya dégg li mu wax daldi dem topp yéesu yéesu geestu gis ne ñoo ngi koy topp mu ni leen lu ngeen soxla woon ñu tontu ko ne foo dëkk rabbi rabbi mu ngi tekki kilifa gi yeesu ne leen kaay leen gis noonu ñu dem seeti fa mu daloon ngoonalal ko ci tàkkusaani kaw la woon kenn ci ñoom ñaar ñi déggoon li Yaxya wax te topp yéesu ma nga tuddoon André te bokkoon ak Simon Pierre ndey ak baay André dafa daldi dem seeti Simon ne ko gis nanu almasi bi noonu mu yóbbu ko ci yeesu yeesu xool ko ne ko yaa di simon doomu yowaana dinañu la woowe sefaas sefaas mu ngi tekki piyeer maanaam xeer ca ëllëg sa yeesu fas yéena dem diwaanu galile te mu gis filip yésu ne ko toppal ci man filip mu nga dëkkoon ca betsayda dëkku andre ak piyeer noonu filip dajeek natanayel ne ko gis nanu ki yoonu muusa wi ak yonent yi doon wax mu ngi tudd yeesu doomu yusufa te dëkk nasaret natanayel tontu ko ne ah ndax dara lu baax mën naa jóge nasaret waay filip ni ko ñëwal gis noonu gis nanu ni taalibe yaxya tàmbale woon toppi yésu lu taxoon taalibe yonent yàlla yaxya tàggoog moom ngir topp borom bi yeesu lii moo taxoon dañu tàmbali woon yéesu ndax te gëmoon nañu li leen yaxya waxoon ci bi mu naan yéesu mooy almasi bi di mbotem yàlla mi yonent yépp yëgle woon looloo taxoon bi kenn ci taalibe yaxya di andre ràññee ne yéesu mooy almasi bi mu daldi dem seeti mbokkam simon pierre ne ko gis nañu almasi bi te bi keneen ku tudd philippe ràññee kan mooy yeesu mu am mbég mu rëy rëy wax ak natanayel xaritam ne ko gis nanu ki yoonu muusa wi ak yonent yi doon wax mu ngi tudd yeesu waaw andré ak pierre ak philippe ak natanayel bég nañu lool bi ñu gisee yéesu ndaxte xamoon nañu ne diirub junni at yonent yi doon nañu yëgle ñëwuk almasi bi te léegi ñu ngi koy gis ak seeni bët ramukat bu am doole bi yonent yàlla yépp doon yégle mu ngi woon ci seen biir naka noonu mbind mi day nettali ni ñeenti taalibe yaxya yooyu tàmbalee topp yéesu nekk ay taalibeem yu jëkk gannaaw loolu nag mbind mi nee ba yéesu demee ba ca kanam mu gis yeneen ñaar ñu bokk ndey ak baay ñuy saak doomu sebede ak yowaana rakkam ñu nekk ci seen biir gaal ak sebede seen baay di defar seeni mbaal noonu yéesu woo leen ne leen ñëw leen topp ci man ma def leen nappkati nit ca saasa ñu daldi bàyyi gaal ga ak seen bàyyi topp ci moom ba loolu amee yéesu doon wër diwaanu galile gépp di jàngale ci seeni jàngu tey yëgle xabaar bu baax bi ci nguur yàlla muy faj jàngoro yépp ak wéradi yépp ca nit ña ba tax turam siiw ca biir réewum siri mépp ñu di ko indil ñu wopp ñépp ñi sonn ndax ay jàngoro ak metit yu bare ñi rab jàpp ñiy say ak ñi làggi mu faj leen noonu mbooloo mu bare topp ci moom jóge ci wàlli galile ak diwaan bi ñuy wax fukki dëkk yi ci dëkku yerusalem ak ci diiwaanu yude ba ci gannaaw dexu yurdaan bu soobee yàlla njàng mi di ñëw dinanu gën a xuus ci nettali yi wone ni borom bi yéesu jàngale woon mbooloo ma ak ni mu defe woon ay kéemaan ngir firndeel ki mu doon waaye ci jot gi nu dese tey danu bëgg jëm kanam ba gis li xewoon ak yonent yàlla ya ni nu ko gise sànq gannaaw ba yaxya yëgle ne yéesu mooy almasi bi taalibeem ya dañu ko tàmbalee bàyyi benn benn ngir toppi borom bi yeesu ndax loolu soob na yaxya ndax bég na ci li ko ay taalibeem bàyyi topp yéesu lu ngeen ci xalaat déglu leen li ñu bind ci linjilu yowaana saar ñett mbind mi nee na ci kaw loolu am ñu dem ca yaxya ne ko kilifa gi ndax fàttaliku nga kooka nga seede woon te mu nekkoon ak yow ca gannaaw dexu yordaan moom de ma ngay soobe ci ndox léegi te ñépp a ngay dem ca moom yaxya tontu leen ne kenn mënula am dara lu ko yàlla joxul yéen ci seen bopp mën ngeen a seede ne waxoon naa ne duma almasi bi waaye dañu ma yónni ma jiitu si ko ki céetal moomoom seetam waaye xaritu kiy céetal dafay taxaw di ko déglu tey bég bu déggee baatam mbég moomu moo di sama bos tey te fi mu nekk mat na sëkk li war moo di moom mu gën a màgg te man ma gën a féete suuf noonu la yaxya birale mbégam ci li ko ay taalibeem bàyyi topp yéesu almasi bi bi mu koy seedeel mbégu yaxya mat na sëkk te mataloon na yonentam ci li mu xàll yoonu almasi bi ni yonent yàlla yu dëggu yépp yaxya benn bëgg-bëggu xol rekk la amoon mooy jëmale nit ñi ci almasi bi yaxya xamoon na ne yonent yi dañoo bare waaye benn musalkat rekk moo am moo tax yonent yàlla yaxya nee na ku gëm almasi bi yeesu am nga dund gudul jeex ku déggadil almasi bi amuloo dund gi waaye merum yàllaa ngi la tiim ci lu jëm ci mujjug dundug yaxya nag mbind mi nee na noonu yaxya teg ca yeneen dénkaane yu bare di yëgal nit ña xibaar bu baax bi ci mbirum almasi bi waaye yaxya yedd na erod boroom diwaanu galile ndaxte dafa takkoon jàdd jabaru magam te it boole woon na ci yeneen ñaawteef moo tax erod jàpp ya yeew ko tëj te ci mujj ga mu dagg bopp ya ngir neex jabaram noonu la yaxya wuy jee boroomam mbind mi dafa nuy wax ne ya yonent bu mag la woon ba sut sax yonent yi ko jiitu lu taxoon Yaxya gën mag yonent yépp tontu laa ngi yonent yàlla yépp dañu doon yëgle ne almasi bi dina ñëw dina ñëw dina ñëw waaye yëgle yonent yàlla Yaxya moo doon almasi bi ñëw na mu ngi fii mu ngi tudd Yeesu xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nara rey ngir dindi baakaaru àddina moom la yonent yàlla Yaxya seede ci mbirum Yeesu te di àggalee noonu sasam ni yonent bu tedd bi xàll yoonu almasi bi jërë ngeen jëf ci déglu bi bu soobee yàlla ci émission bi di ñëw dinanu jëm kanam ci linjil bu sell bi ba gis lu tax ñu tudde yéesu fajkat bu mag bi su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP Saint-Louis yàlla na leen yàlla leeral ci lépp lu ñu jàng tey te ngeen xalaat bu baax ci li yonent yàlla Yaxya yëgle woon ci Yeesu almasi bi bi mu naan xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nar a rey ngir dindi bàkkaaru àddina